وجهي لمن تكريم بانا في شهر مولد من في البحر نبانا وجهت وجهي لمن تكريم بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي

Serigne Touba rek santaat Cheikh naa Cheikh Saliou ndax liggéey bi moom daanaka bañ xëyee ñu ñëpp amoon nañ jàqare jàpp ne tool yi moom daanaka li fi nekk pour ñu jëlee ko fi dañuy am jafe waaye nag gannaaw bi ñu santaate Serigne bi gis nañ liggéey bi ni mu dugg nañ tool yi daanaka daal mbokk taalibe yi daal moom gi ñu xëy passeef gi ñu ci def ak pas-pas gi ñu ci si tool yëpp daal def nañ seen kéemtalaay kattan ba jëlee ko fa ah, du mën a du mën a dugub ji jeex na waaye xam naa ne moom fa nga jeex na fa waaw fa ma jógee moom dugub jeex na fa waaw la daal mbokki talib yi ñu ngi koy yenu di ko roñ di ko indi jal bu ko boolente waa fan jógee moom xam naa dugub ji jeexagut waaye nag am nañ ci yaakaar ne léegi mu jeex ndax ñu ci bëree bëri ña nga fa te ñenn ñi ñi ngi dem di jëli ci liggéey bi am nañ ci rafet njort ne daal balaa yàgg dara dugub ji moom fa mu nekkoon moom incha allahu rabbi dana fa jeex waaw waaye daal liggéey bi moom ñi ngi koy ñi ngi koy rafetlu bu baax a baax di di di gërëm ak di santin mboolem ñi nga xam ne ñoo ñëwoon fii te Serigne Saliou rek taxaleen a jóg mel na ne ku ñëw fii moom da nga da nga gis ne ñi ëpp ci ñi fi nekk ay ay ay ndaw lan nee na ñëpp dañoo jóg ngir jima liggéeyal Serigne Saliou ndax xam nañ njëriñ li nga xam ne moo nekk ci liggéeyal Serigne Saliou waaw liggéey moom wax dëgg am na solo te tegal na yoon ndongo yi moom wax dëgg la uh, a ñun digal rek la ñuy déglu waaw yaa yi de na si biir wala desugul si biir non tax ñu taxaw nii daal ñu ngi dégluwaat pour ñu wax ne fa rek ñu dem foofu xalaat nga ne fii ak uh, fa kañ la dugub ji war a mat ah fi mu toll nii daal ñu ngi taxaw di déglu ndax gisaguñ instant yi moom gisuñ gisaguñ feneen daal ñun jal biñ mujjoon moom jeex na ñu ngi dégluwaat ndigal li wax. jërëjëf euh, sëñ sëñ bi ñu ngi lay sant. kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi suñ borom jox na ko doomu aadama yi bokk na ci li ko jox xol yi nangul nañ ko jëmm yi nangul nañ ko nit ñaa ngi yëkkati seen alal yëkkati seen doole bàyyi seen ak jot bàyyi seen lépp ngir ñëw liggéeyal sëriñ bi. kon loolu moom li liñ ciy gën a soññee rek mooy ñaan yàlla ba fexe ba bokk ci loolu rek di gën a ñaan képp koo xam te ni sa bëgg ak sa cofeel jëm na ci sëriñ bi rek yàlla na ko yàlla yokk ci barkeb sëriñ bi te barkeel ko. waaye day wane ni waa fondation Ande Dieu Aliou jëf rek moo leen ñor ndax xam nga ni naaju tàng na ñàq yu metti na xaa xam bi bari na waaye mbooloo mi lijjantiwuñ ko ñoo ngi si biir dugub ji di góob di sëgg suuf soxna yi di jël di yóbbu si jali loolu ñu ngi si jaajëfal baax a baax di ñaan lépp bépp soxla bu fi waay indi yàlla na ko Serigne Saliou saafara yéen it ngeen dem ba yori télé di ñu defal en direct si Xelcom ji macha allah kontaan nan tawfeex ak Tanzil